une bi waaw li nga ci def dafa am solo. waaw li ma ci def man abu noo ko xalaatee Moustapha Ba waaw. man gis naa gars yi nag ñu ngi koy tàcc fépp. waaw waaw ñu ngi koy wax fépp. mais man Moustapha Ba. Hmm. ci det ak empreinte rek laa gis mu nekk ci champion. parce hmm? que abu waxaatal. non Moustapha Ba. gis naa ñu koy tagg ci générosité. waaw bëri na parce que assemblée xam naa ne ku fa généreux la. Hmm. loolu foo loo bëgg foofu. ñëpp tàccu la. Hmm. waaw mooy ba leen am am noo def ak ñoom daa xaw leen jàppale. mais Moustapha Ba. Hmm. man li ma gis ku maîtriser langue langue bi la maîtriser vocabulaire bi la. dëgg la financière bi. Hmm, dëgg la nekk personne rouage maîtriser ko au fonctionnaire mais parcours am ak saa yi ñu ko wanee télé rek tel triomphe de la dette et des emprunts. ah bon déedéet loolu du loolu Amadou daf ko jàng ci Amadou parce que sept mille milliards yi moo ko non xam nga xam nga par exemple bu wax Amadou sax hmm. xam nga Amadou jógi nek impôt jógi dem finance ben moment Amadou dafa pousse bi mu baa indee dettes yi ba paré dafa pousse hmm. Amadou ben 2 ans nek fi waaw mais Moustapha musul arrêté waaw Moustapha musul chemin ci état hmm. té musul génn trésor public té trésor public on nous parle de l'administration qui perd 100 milliards par an sur corruption en 2017 échantillon bi mu jël ci administration. daf on perd 100 milliards 2017 te échantillon rek la jël. mais 2017 2018 2019 2022 combien d'argent on a perdu lan la ñu moderniser au niveau de l'administration prennent presse ngi mel na mu mel ba tey ñi ko diriger ak PCA ils ñom Racine ñoo riche ñoo am auto ñoo am xaalis mais retraité yi ñu ngi sonn ba tey. Hmm. bi ci top la modernisation boo ci perception yi dara changé wul. Si vous di fay un passeport qui dara changé La corruption, corruption le problème de administration mais dette bii nga xam ñun dañ ko fay fait dette ci ci lebi bor expertise vous avez compétence donc pour man Moussafa Ba si nous koy tàggal nous ko indil le mécanisme yu mu teg yoo xam ni bi fonctionnement, mm-hmm. fonctionnement recrutement administration fonction publique lan mo fa nek ba suñu administration yi am lenteur suñu administration yi fonctionné wul suñu fonctionnaire yi liggéeyuñu ak pléthore bi am ci bir fonction publique y a eu cinq mille et quelques yu ñu wax ne ni dañu leen jël fictif. Mm. ci biir loolu Gallo moo ko waxoon. te daaw la ko waxoon. Mm. aujourd'hui dans l' administration boo demee ci hôpital yi kenn liggéeyut. Mm. boo demee ci administration publique yi kenn liggéeyut. boo demee ci hôpitaux yi dañu lay wax ñi ñu fa recruter indi leen fonction publique mais ku war a jëli ci dette chaque jour di ñu indil ay dette ay centaines de milliards. nga ñu koy leb looloom suñu sët yee koy fay ba pare recrutement yi ngay créer ay dépenses. de mhm. moderniser au dara indi woo yenn mécanisme pour lutter contre la corruption gis naa il est très ouvert avec la société civile institutionnelle mhm. ndax dañu am société civile institutionnelle bo xamni ñom fek feeg ngi leen invité table ronde fek yaa ngi leen di yóbbaale ci voyage yi fek yaa ngi ànd ak ñom ci yenn séminaire pour permettre leen ñu de sen budget yoy duñ la wax dara dañ naan la bien fait mhm. mais ñun poste bi ak ñun biir bi il faut que Moustapha wax ñu carrément wax ak ñun mais pas ci dette parce que ça ñu ko wanee télé rek dafa jëlee ay milliards te loolu gën yomb lolu bitiki bi sax mën nako dem la bi indi bitigéey bi nekk ci koñ bi sax mm. mën na ko donc problème boobu la fi may wax ak yow nii mënuñu toog hôpital Fann pendant presque trois mois amuñu machine cardio boo xam ne mooy def ECG. Mm-hmm. hôpital Fann fi may wax ak yow nii na ko ministre bi dégg na ko premier ministre dégg na ko Amadou Ba dégg non seulement IRM ay cent vingt mille euh, scanner ay santé produit yi ñu koy defee amul boo ñëwee boo amul xaalis boo amul imputation budgétaire mais fi may wax ak yow nii ñi am maladie du cœur ñu ngi foofu di taxawaalu. Mm. machine machine bu war a fay bu war a ECG ñu ne la administration bi mu ngi ci en bonne forme ñu ne la argentier bi dafa aay ñu ne la argentier bi xaalis bi mu ngi normal ñu ne la dette yi mu ngi dugg te hôpital yooyu structure hospitalière loolu hôpital fan laa wax mais Pikine moom dañ ko amul sax. Mhm. te ñooñu ñooy déplacé wu di ñëw ma ciy wax nag ville de Dakar su dee Barthélemy bi mu ngi may dégg su mënee jël don wala lu mu mën a dimbal parce que Fann ci biir Dakar la bokk su mënee dimbalee don machine boobu parce que ñi AS ñi AVC ñu ngi la. te AVC pour ñu sauver la faw nga mën a defi ji yooyu SNL parce que mmh. neurologie dañ lay bindal rek demal te rendez-vous mmh. par 7 mois 6 mois te am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir hôpitaux yi def DEA jóge mmh. CS kenn recruté leen léegi fonction publique chaque jour mu affecté fa ay nit te bureau yi kenn du fa toog donc pour man Moustapha Ba mi yor administration boobu ci liñ koy taggee nañ ñu ko wax mais du rek ay dette du ay empreinte parce que loolu ko mën dëgg la